da ko wane woon doon shérif mais terewul mu jël loolu yëpp teg ko fële bëgg maam Seera Fall def ko ci xolam te boo xoolee Baye Fall mu àndal yëpp ñu doon ay jeunes mu defar leen ay Baye Fall sell la defar man mii di wax ak dans les années quatre-vingt-dix laa daan ñëw ci moom boobu léegi ça fait plus de trente ans. donc yàlla dogal na man sama xarit la woon sama sëriñ la sama jëriñ la donc dañ koy ñaanal yàlla fa mu jëm gënal ko fii mu jógee di ñaan yàlla tamit njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi yàlla xamal samay mbokk mooy gis ne moom sëriñ la woon nit diine la woon mais teewul artiste yi ñëpp ñi nekk Sénégal homme de culture yi doon ko jublu woon loolu nan la jikkowoo woon ba tax ñëpp jublu waaw xam moom xam nga sëriñ Abdourahmane dafa comprendre woon jamono mooy nit dafa comprendre woon jamono mooy tey jii ñi yëngu ci musique ak ñi yëngu ci alxuraan ak ñëpp ay doomu aadama lañ ci yàlla lañ jóge ci moom la ñuy dellu kenn gënul kenn ki baax yàlla rek moo ko xam moom dafa njabootoon jël monde art bi ak xale yi nga xam ne ñëpp dañu yaakaar ni seen wayjur yi amatuñ ci ñoom yaakaar mu xëcc leen defar leen ba mu baax delloowaat leen seeni i mbokk donc nag moom nit la koo xam ne man ci sama gis-gis defar rek moo koy waaw te yàlla dogal na defar na ba ni mu fi jógee donc jógewu fi sax ndax ñu fi bàyyi liggéey bi mu fi bàyyi ñi fi bàyyi dañ koy continuer di ko def. jërëjëf kon daal tey am ngeen lu leen naqari yéen. non xam nga am lu la naqari sax dafay mel ni na suñu borom bi daf la naqari mais daal bu ñu soñoon xaajoon na fi daal mënoon na fi toog ba ci kanam. mais li yàlla dogal ci moom jaam mënu ci dara donc dañuy ñaan yàlla suuf woyof ci kawam te ñi ci bàyyi yàlla teg leen loxo jërëjëf. defe Diouf Sarr mii ak ñi ñu àndal ci tànk yooyu lañu nekk ba tey ne loolu xëy na juuf Sarr li tax mu jox ma kàddu gi defe naa ne loolu moo tax xëy na daf koo xam parce que li may bëgg a seede léegi maa ngi doon laaj kii ana Baara Diouf deux mille deux mille 2008 boobu metti na lool lool lool bu fay Baara Diouf Serigne Abdourahmane Fall Tilala ak ngañ mii ak Farba Ngom ak man ak président Macky Sall ñoo bokk toog Serigne bi am lu mu wax. la mu waxoon duma ci dellu waaye gis nañ ko firnde bi Baara Diouf en 2008 dafa am woy bu mu fental Macky Sall président Macky Sall te woy woowoon ndigal la ci jotoon ba dex mu def ko Cheikh Abdourahmane Fall ci moo ko ko waxoon ne ko mënumaa génn ci rajo yi di ko wax waaye damaa bëgg nga fent ko jamono ku nekk fa nga nekk nga toog dégg ko loole defe naa ne seede la boo xam ne nii dama ko dund ak ñoom kon ñun sunu teewaay fii représenté fi président de la république du lu fortuit maanaam lu war la yoon la dëgg la waaye nag ku xam président de la république xam ne la mu ñu digal ñu def ko moom ci boppam dana yëkkati tànkam ñëw fii saafonte ak njaboot gi delloo leer seen cër ci li nga xam ne ni ñoom ñoo ko bokk ndax wax naa ne ñii dañ ko cee ëppale rek waaye ci la sëñ Aziz yaag sa waajur yi toog fii président de la république andir na leen njaal teg ko ci loxo ministre Abdoulaye Diouf saar sëriñ bi Mbàkke sëñ président de la république andil na leen njaal ndax soxna Fatou Gaye kat Farba Ngom yëkkati ñetti junni jox ma xaw ma ñeenti junni ñeenti junni daal di fecc Macky dama suba nañ fi dellu siwaat déglu rek li wax ce suba ga ma wat Macky yéegaat sa kaw wacc joxat ma un million jappat sama loxo batay mi ngi wóorlu ndax dana doon président Bim mu sama loxo ban dugg ci ruq bi mën ma juuf sans blague nag dañuy waxtaan rek man ak yow <laughs> waaw jëlal lii waay ma ne ko lu xew mu ne ma is saman dinaa doon président Tilala mais ni mu ko waxee dafa yomb de maanaam si way bi lay jaar ma ne ko yow xamoo Tilala man na lu ne mu ne ma ma ne ko génñaa ko si sëñ Bamba ku yàlla bind mënta tee nga doon président xam naa ki wax ak man ma jógee kër Macky fekk ko kër Soxna Awa Sow mu tëdd si salle bi man nuyu ko mu ne ma moom xamuma moo tax mu may werante waaye mooy fanaan pale moo koy moom wax naa ko yàlla def na ko ah ñuy dem di dem ba makki di def première campagne woo ma man ma jiit la ak moom way wa ma ko way si tabala yi ma jël tabala yi teg ko si oto Macky jiitu ma jiitu ma koy way muy def nii ñuy dem ba yàgg taseeg sëriñ Abibu doomi sëriñ fan sëriñ Abibu daal di taxaw ma ne ko Macky taxawal Macky taxaw ma ne ko kii ñu taseel doomi sëñ Fallou sëñ Abibu ne ma baara loo xew la ba ànd ak Macky ma ne ko damaa bëgg mu doon président ndax tilaa la nee na day doon président te yaay sëñ Fallou mu ne ma ginnaaw wax na ko yàlla dina ko def. Ah, affaire bi di dox ba yàlla nattu Macky nattu ma ñu daje Amérique. mana ne ko yaa ma ne woon soo gañee may bour te bi ga gañee ba tey baddu la mu daal di may déey na ma juuf yow ya, nak lu ne ngay ya, wax sa bay billahi mo man góor man seigne Fallou sama serigne Cheikh murtala Juma sila suku su aduna jébbalu adduna ak alaxira li sa bay def ci man benn góor mënu ko def man Bara si micro lay wax moo ma gënal ñëpp moo tax ma mel li ma mel yor li ma yor te kenn du si man dara liñ idi kaas rek te duñ si man dara moo ma ne def naa la ngay milliardaire ku yàlla bind amul garabam.